kii la rek xam nga sàmm moom boo koy def garga kaay yàgg ay xara ngi nii man de garga mboose wax nga dëgg de ci fulla mba boo boo boo sante xar yëpp moom ma ci benn. daa weex donc. yuga moomum xar yëpp waaw. daal fi jaar nii rek pour siyaar xool affaire yi. mais yuga xar yëpp. yuga ko waaw. problème mais li ma jaaxal sànq da nga ne ma booy dem yóbbaale. non loolu du dara xam nga alal yëngam sama alal la. Ah. defe naa su ma la suma konee su laa ko jox du ci wax dara. am na solo kon. Ah, lan moo la tëree ah, xam nga rek boo yeewoo gis nit ñi bëgg la bëggee di la di la chargé di yooyu. a kii da ngay kii rek. et puis looy ndékkee nii. mburu la li meew la xam nga ni mu demee. nga xam nga looy ndékkee. ba xool <laughs> non la sant nag ngomeen ni gis nga di ndékki ba ci ngay ndékki gaal mooy def. bu xëyee defoo dara xam nga xam nga boo xëyee dafa am yoo xam nag dañuy nelaw dañ na war a yee. ah daa am yu ñu doon nelaw ko ñëwee. xam nga lépp yow. Ah, ah, ah. mais fi ma la fekk nii lii. <laughs> garga lii ay. waaye daal ma mooy loolu quoi xam naa moom ngomeen moom bu ko fekkee ci biir ay nag ay ginaar ak ay xar moom sa mooy sama mooy sama mooy sama kër hmm. waaw. ñu ñooy ñan ñu ñooy mbokk taalibe hmm. <laughs> moom sa tur bee ma jaaxal waaye kon ma tuddee la ko. <laughs> kii daal. xam naa boo tuddoon nan boo tuddoon nan sax. am naa beneen tur bi ñu may waaye du ma la ko. boo tuddoon beneen tur daal ma tuddee la ko. waaye tur bi nga yor moom. waaw su ma la ko tuddee moom. kon danañ ko tuddee Garga kon. moom taalib yaa ngi nii mooy Garga. <laughs> kii moom kii mooy kan. non kii kii kii normalement normalement. Moussa Balla laa ko tuddee woon. Moussa Balla waaw mais boobu ba léegi ngénte bi. Ah. wala damay téye tur bi en attendant. ba ba muy ñëw ngénte ba ba muy ñëw waaw. ñoom fu ñu jógee ñoom Hollande la ñu jógee euh, Brésil wala Sénégal wala. waaw non euh, bon fii la ñu mais seen i parents jóge wuñ fi. Hmm. loolu problème bi waaw. wala Amérique lañ la ko joxe. non non non yii ay nagu Hollande la yooyu mais suñu suñu bëgg la suñu grand bu baax moo fi nekk yu la moom mooy fii daal mooy fii <laughs> waaw. garga lii say Hollande la rek naan ma di ma a ba tey tes na de lii lii tamit ay ginaar la de garab. waaw loolay ginaar la. Ah. lii ay bra lii brahman la lii ginaaru Sénégal la lii copine la lii ay colvert la canard yi. colvert bële mooy colvert. Ah, de ba ma si joxe ma yóbbaale ko. ay boo ci ah. yaay sëñ bi kenn du la téye ci dara. boo ci ñeme li ma jaaxal nag bi da laa nga nar a arrière. ah damaa xamul jikko mu ut si mu boot nopp yi. waaw loolu ma si jaaxal ma si jaaxal de man. mais sàmm du ragal jur de. bu la xoolee da nga koy xool boo dawee rek. mu kii waaw waaw yow borom sàmm xanaa da doon dem dëkk ba di laa doon sàmm fii est-ce que mosoo dem dëkk ah, dem di xool rek ak yooyu noonu man nag yàlla dogal na ah. dëkk ba sax euh, xanaa dem seeti mbokk yeeg yooyu mais ma fa nekk wala ma yàgg fa ah. mais nag am na loo xam ne ci ñun la ne ñun dañoo judd fekk suñu yaay bëgg jur yar ay xar ci kër gi xam nga loolu moo ñu si roi des arènes dugg si na parcelle ki ko fi dugal mooy Modou te Modou yaakaar na xamante ngeen parce que suma ma jumul yéen a ndoo xale ba nekk tey ay mag yàlla jëmm Modou lan moo ko may loo jàpp ne moo ko may roi des arènes. lu weesu yàlla suñu borom loolu laa jàpp na yàlla mooy maye. waaw non bu ma waxee xam nga yàlla mooy def lépp mais ci côté nit bi nga xam ngeen partagé woon benn écrit daan contact nga xam ko ci bëre xam nangamam nangam ci qualité yooyu laa bëgg ñu wax daal. waaw bu dee ay qualité moom defe naa tout d'abord sax dama koy féliciter ba pare féliciter parcelle gi yëpp parce que ndamu parcelle la du ndamam moom euh, bu ñuy wax ay qualité am peut-être duñ fi jóg parce que ku ne xam ne ne ndaanaan moom ci moom la yam mën na bëre mën na làmb te ñeme na entraînement te loolu defe naa mooy affaire bi waaw te euh, bu ñuy wax mbër dëgg dëgg dëgg boo jege moom danga xam ne mbër la kon c'est normal. Hmm. bi ngeen di nekk di partager écrit Rock Énergie yéen ñaar gisul nga ci moom sirru bu lay woon ni ki ëllëg war na mën a nekk mbër bu mag buy teel am. Euh, xam nga loolu nag fi mu ne nii <laughs> loolu moom fi mu ne nii du la mës wax déedéet ndax xam nga loolu euh, maanaam ay mbër bu ñu nekkee écurie moom ñaare fi affaire bi di génne sax duñ ko foog mais ku xa yàgg xam sawaay xam ne même mbabat bu du gisee gars yi dañuy am problème <laughs> waaw xam ne ndaanaan moom ci moom la yem bëreeg jàppal bàyyi yooyu moom waxaale wuñ ko. comprendre nga peut-être gars yi li ñu doon ragal mooy taay bi dafay am problème mu bëreeg luur dafay am problème mu bëreeg njool dégg naa ku nekk di wax ay day am problème mais du loolu du làmb làmb du gudd rëy de déedéet. Ah, dégg naa ñu ne su bëreeg njool day am problème. ah yi ñooy wax noonu rek mais yàlla yàlla dogal na njool yëpp a ngi fi jël na affaire bi kay. nekk na roi. <laughs> waaw loolu moo am solo. <laughs> tey diggante bu ëmb la am yow bett na la. Euh, Euh, Babacar Babacar. Garga faw parce que yéenay roi des arènes nag. xam nga waxtaan. ñaar parcelle 100 pour cent. amoo moo nekk ci waxtaan. ñaari boo waxee sa xalaat. mën na am ñu mu arrangé mun na am ñu mu arrangé wut ndax ñëpp tolloowuñ xel dinaa la tontu xaaral rek dama lay wax nii ba pare soo waxee dëgg moom ala kulli aay ñi mer parce que ñii dañuy am ñu gis seen bopp ñii ne war woon wax lii ñii ne nangam nangam mais man benn combat la Modou Lo mës a am Babacar Cissé lay jël en témoin parce que lu ci bëri avant combat bi dañ ci dañ ciy waxtaan benn combat la Modou mës a am ba xaw cee am xel ñaar benn combat muy combat ba Bombardier lu taxoon nga xel ñaar. boobu combat laa mës a jàpp yaakaaruma ne dina ko daan parce que damaa xam Modou gëm-gëm bi ne ci moom ak ni muy bëree moo tax ma avant deux jours xaw ma trois jours avant combat ma naan ci jaaxal saa dina jaay boppam waaye waaji boof ko avant combat bi. ngi ko doon wax loolu. ñu ciy waxtaan nii. comprendre nga maanaam Modou man dama ko ci wàllu bëre nii dama ko ci wóolu wóolu ba ñaara bu defee dara du ma bett loolooy problème bi. loolu moo la tiitaloon ci combat bi. waaw mais moog Balla Gaye suñuy bëre mu doo ci am tiitaange. <laughs> moog Balla Gaye xaw moog Balla moom dafa xaw a doy waar combat yooyu parce que làmb làmb moo doy waar. làmb day am yu ciy yoo xamante ni boo ko xamee avant combat doo taxaw kuy taxaw taxawaayu supporter nga xam ne moom li mbëram xam rek lay gis kooku bokku la kii jugé nga xam dafa ak ki bokk nekk ci làmb nga xam day xam réalité làmb loolu différence bi waaw. foofu lu ko fay faral di sonal moog Balla. ah man de ci li ma jàpp. combat bii passé nii rek la mënoon demee parce que ku ñëpp tif li nga tooy te jàpp naa ni combat bi xeex yi def ci bëri woon donte Balla bu ko daanee war na ko mën a daan. maanaam dañ doon dañ doon xeex mu mu du daal. moo feeñ bi combat bi passé. lan mooy xeex loo tuddee xeex yow. non bëri na loolu kay man nekk jeune mënu ma nekk avocat yi jaabul. parce que li fi nekk yaa ko gën a xam. man kay xamuma man arbitre suuf la ñu bëre laa gis. waaw mais xam nga am na jël yoo xam ne bu ko bu ko ndaanaan xam ne tamit moom mooy loolu ndax li gars yi li wax jël mbër na. boo waxee lii waa kër Eumeu Sène ñoom itam ko bu leen neexee est-ce que duñ ne ma mooy Balla Gaye war na mais bu ma la la aspect sportif maanaam lu ko fa daan ban erreur la fa def. ci biir bëre bi. ci Babacar. Garga dañuy waxtaan di. <laughs> non man xam nga man. non xam nga yow xam nga xam nga erreur yam fa def. erreur moom. li ñuy wax naan bu erreur mbër bu erreur amee jël jël du am xam bu erreur amul. maanaam bu njuumte amul jëlu du li doon erreur bi bu dee sax erreur la. parce que tamit Modou nit yàgg na gis nit ñattu ko mu def loolu lu doy war n'est-ce pas mais peut-être yàgg dugg ba mu dugg si suuf waa ji pëtaxal ko erreur la. mais ku xam làmb aussi da ngay xam ne parfois làmb di nga def loo xam ne day passé nga ne est que lii maa ko def xam nga lu nekk mën na man xawma mais pour man loolu tam dëggal boppam bi erreur la parce que làmb naxante parfois day am parce que bi may bëreeg tonnerre dama toog ñuy waxtaan avant combat bi gars yi wax ma ni ñu bëgg ma bëree defal nii defal nii ma ne leen ok mais bi ma ñëwee ba si làmb ji ñu def suñu mise en train def suñu yëpp. ñu dugg ci biir géew bi ma xool avant ñuy dugg ci géew bi ma gis tonnerre agressivité bi ma doon jéem wan man ci biir làmb ji laay ceeñcee mayen wan ko de man ñemew ma la su ma xoolee ma xool gos mu naan rey naa waa ji ba ci ñu mu àndal dégg naa ku naan sa ay fit bi dem na avant ñuy bëre arbitre sifflé dafay nii rek ma daw arrière xam nga yooyu ku nekk ak sa stratégie moom mu jàpp ne dama ko ragal mais bi mu attaqué dama ko bëggoon dama ko waroon dóor mu daanu parce que coup bi ma ko dóor mu rëpp mu xaw a kii bu ko daloon day wàcc te bi ma ko jàppee gis nga nu mu demee maanaam ku nekk ak sa parfois ñu digal la dara nga ñëw ba ci làmb ji xam ne làmb ji laajul lii n'est-ce pas mais Modou toll na foo xam ne ci doon daanaan peut-être dépassé na yenn yi. maanaam daal risque bu xëy na moom nga jàpp ne da. waaw su ma doon moom bu arbitre bi damay won bàll ñemewu ma la xëy na nag booy bëree di sóoraale waxkat yeeg ñenn ñi ak dëggal sa bopp bi yenn yi doo ko def ndax man lu ne laay dégg ñaar ñett ñooy gargat appel la wala ñemewul wala nangam mais ku nekk ni nga tojee sa bopp jënax waaw am na solo parce que boo gisee ñu ci laaj ci Modou parce que dafa bëri lu ngeen bokk lu partagé tey bu demee ba nekk roi des arènes nag téye làmb c'est très normal ñu wax ci moom léegi sax nga laaj ma ci parce que war naa ci mën a wax mais li tax may daw may daw wax ji lu uude wax ci nag bu feebar ñooy derb la soxla tey su ma ko waxalee dara ñu ne voilà ñoo bokk parcelle daf ko faral nangam nangam xam nga ba tey dama si descend ah, parce que euh, Amérique bi moom li nga seere ci moom ñu wax la ko ci moom ay borom xam-xam ak ko wax li tax ma siy des mooy daf ci jóge nag léegi ñu ne diggante ak Ama Baldé mënta ñàkk waa Kër Moodu ci début bi ñu déggul ñu ne ñoom bëgguñu yaa ngi dégg dem ba dinañ moment ñu ne Moodu waxtaan nag promoteur bu déggoo Moodu ak Ama Baldé. bu dee cadre xam nga da ma wax sànq léegi aspect sportif bi bu dee aspect sportif bi Moodu warul bëri Ama. foo teg loolu. parce que palmarès tolloowul cachet yu tolloowul. as dara tolloowul. yow yaa ngi ni dëkk la de guerre. xaar damay danga may bàyyi ma développé bu fekkee aspect sportif bi li jaadu. warta bëre ak moom. mais ci làmb lañ nekk. comprendre nga tey jii bu doon euh, MMA la wala box wala dara Ama Baldé day nekk challenger numéro un maanaam day nekk meilleur espoir. waaj waaw waa waaj moo yor bi mais combat bi ngeen di fayat du doon ceinture bi. xaw ma ndax comprendre nga ma. maa ngi lay dégg kañ. mooy seen ku soxlaati ku la soxlaati foog mu daan ko pour mën la jot mais xam nga làmb doxewul noonu. làmb boo liggéeyee vingt ans kenn liggéey deux jours bu la daanee day sa place. léegi léegi choix bi ci Modou la des bëgg na Ama bëggul Ama loolu moom la ci moom la dépendre. dafa war a d'accord sax. parce que yow làmb bëri nga bay li ñëpp doon laaj soxla so li ñëpp soxla yore nga ko mais yaay seet fu sa kii rek nga fu fu fu noo ko sentiree. mais ah, la ñu waroon na moru mu daw. waaw buñ ko fayul du baax sax mu ñëw parce que moom moo soxla. ama ama kay bañul combat bi xanaa problème mu fay la ñu. loolu nag ci moom la def ma ah, man sama xalaat nga ma laaj. sama xalaat laa la wax. mais ñoom ñaar ci bëre nii biir bëre ñoom ñaar bu ma laajoon ku dàq bëre ama ak Modou. pour man Modou ko mën. Ah, li ngay wax nii loo gëm wallaahi al azim barki Serigne Babacar si loolu laa gëm. yow moo doon mën a am. waaw ci lan da koo ëpp doole da koo dàq doole bi moom wóoruma parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci mais ku ne yaa ngi bërëm may gis mais Modou man ñaar seen combat bu man maa bëri deuxième combat bi fekke naa. fan mbapat ma. stade parcelle la. maa fekkee ne ba kan lay laaj. <laughs> loola nu mu demee. yow koo bëril bés boobu avant ñu ñëw ci boobu. maam biram la bëre rek papa Sow. biram ku mën a bëre. moom laa bëre taqe histoire histoire. <laughs> moom laa bëreel <laughs> bàyyi pël bëreeg euh, ku bëriwul ak Seydou xaw ma waaw. affaire yooyu xaw ma waaw defe naa Abdou Khadim Gadiaga numéro 2 lañ ko doon wax moo bëri ak Ousa 2. rek presque ñoo waa Fass la woon ci côté parce que waa Fass côté bii waa ñoom booy nekkoon photo bi ta nekk Fass waaw. léegi Ama ak Modou. non Modou da ko daan jël bu doy war. mën nga dikkaat si jëli bi. Euh, waaw bëri nañ bëri bu xaw a sew mais Modou daf ko xam nga Modou daf ko daf ko braqué comme li ma xaw a bëree ak Moussa Ndoye loolu la xaw a nirool mel ni lu ko bëgg a xar-xaru ginnaaw ñu jar gandalu mu rëpp Modou wër ko ndomba. loolu waral ñu gis ci foto bi Modou jaar ne ci ginnaawam. mais jël boobu amagul ci làmb gisaguma ko ci làmb. <laughs> nga yaakaar amaa magul loolu léegi. <laughs> ah ma daal sama xalaat nga ma laaj sama xalaat laa wax man àttewu ma ci ma. te man du sax bu war a wax. Garga sa lu pikin bii ndax dina neexatee def noonu. <laughs> ah man de jàpp naa ne. moo doo ko mën foofu loolu laa jàpp. mën naa ne ci erreur nag. waaw. <laughs> Mour yéen a ngi déggante. non non non gëj nañ dara gëj nañ déggante xam nga peut-être temps bi ak yooyu loolu la rek waaw. yaa ngi ci 100 pour cent parcelle bi. ah bien sûr parce que man parcelle laa dëkk parcelle laa dëkk fii lay représente. looy tàgguñu li suivre ci Leewtoo TV. ah di leen bëggee di leen ziar rek di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ne su fekkee wax naa fi loo parce que Babacar wax loo nga ma wax yoo xam ne sax tey yaakaar naa ne moom ah, ñu bëri nañ ne waa Garga mi lu ko dal <laughs> waaw mais nag affaire yi moo ko laaj tamit affaire yi moo fa toll. te naa ne duñ ma mere dinañ ma comprendre waaw bu fekkee wax naa lu ëpp maa ngi jégalu waa Sénégal yëpp di wax ne mën naa leen euh, te bugguñu année blanche nag waaw bugguñu a blanche heure bi daan na fekk lamb yi taxaw parce que daaw boo seetloo mbër yu bëri espoir lamb lañ bëriwuñu làmb tollatul foofu wax dëgg war nañoo góorgóorlu mbër yi seet seen bopp promoteurs yi aussi seet seen bopp kuñ ci seet si nga xam ne combat bi raisonnable la nga jël ko waaw. kontaan ci yow. ñu ngi siyaar wér-wér. <laughs>